dañu jàpp ni Macky 2012 moom mooy coalition bi njëkk a porté euh, son excellence à la magistrature kon tey ji warul euh, néew ci xare bi waru ci néew ci xare bi dolli ci euh, fi ñuy dëgmal dafa am yitte loolu pour ñun am yitte loolu pour président de la république te kon dañ ci war a dox suñu wàll ba mu mat sëkk sëkk sëkk ndax ku ne xam na ab réew dañ koy natt ci qualité yi nga xam ni moom mooy ñi nekk ci hémicycle muy député yi waaye it dañ koy natt ci ñi nga xamante ni ñoo ànd ànd ak euh, njiit nekk kuréel di liggéey ak moom ba tax na tey jii li nga xamante ni son excellence jot na ko fi tàmbali ci liggéey mu nekk ay liggéey rafet mucc ayib defe naa ne tey jii dañ ko war a jàppale ba mu àggale ko àggale ko nag ci ni mu gën a rafetee àggale ko ci ni mu gën a set kon du ñu permettre kenn koo xam ne da ngay bëgg a ñëw tey jii xajamal euh, ndab li xajamal ñam li ñam loo xamante ne ndab loo xam ne ndabu Sénégal la ñam loo xam ne ñamu Sénégal la du ñu may kenn mu koy xajamal kon madame le premier ministre Macky 2012 na mu ko doon jàppe ak na mu ko doon defee tey la gën a laxasaayu ànd ak son excellence di ko gunge ci législative gunge nañ ko ci local yi gunge nañ ko ci législative yi dinañ ko gunge waat ci présidentielle bi ba nga xamante ne ndam li nga xamante ne moo jaadu mu am ko mu am ko ci saa su ne suñ ko jàppee ci àpp élection Macky 2012 du ci daw du ci randu comme niñ ko waxee nag ñi ngi tàllal ñëpp loxo ndax liggéey bi ñëpp ko bokk bu ñëpp àndee bokk def ci benn ndab li du def dul yokku te yokkute Sénégal daf ko teg Sénégal dafa war a émerger te def naan ci ñun ñii la war a jaar donc madame la ministre tey moo taxoon ñu ànd tey jii daa dee andi presque dix mille parrainages bëgg ko jébbal pour li mooy sunu partition moom mooy sunu sunu sunu cër sunu contribution ci parrainage yi nga xamante ne lancé nañ ko pour élection juillet deux mille vingt deux te buñ ko tolloo bu soobee yàlla dinañ ñëwaat fii dañ ko feetee dinañ ñëw wiiw ndaxte loolu rek moom moo ñu ñor moom mooy li ñu ñulug jërëjëf. jërëjëf euh, madame la coordinatrice de Macky 2012. soxna Fatoumata Gueye Diouf ñu ngi lay nuyu di nuyu délégation bi nga àndal ñu xàmmee ci vraiment suñu ay àndandoo yu yàgg a yàgg yàgg ñoom rek a toog fii ndax euh, ñu fàttali ne coalition Macky 2012 mooy coalition bi nga xam ne moo njëkk a jàppale le candidat Macky sàll en 2012 tey bu ñu toogee ba doon 2022 dix ans après waaw ngeen nekk fii Euh, vraiment dañu leen di féliciter sargal leen pour la loyauté et la fidélité dans le compagnonnage qui a duré une décennie dix ans de collaboration euh, tey ngeen gën a takku tey ngeen gën a mobiliser euh, pour jox suñu coalition ak président de la république ndam kon dama leen di féliciter déjà pour cette longévité ndax ànd ji politique yombut kon lu jar a célébrer la dix ans de coalition Euh, macha allah est déjà une grande réussite euh, seen dix mille parrainages yi ngeen andi tey moo am composante yu bari yoo xam ne yii ñoo bokk ci Macky 2012 loolu aussi jar nañu koy wax ñoom ñoo contribuer euh, nangu nañ ko avec beaucoup de plaisir ni ngeen ko waxee pàcc bu njëkk la xam nañ ne yéen a ngi toujours sur le terrain pour pouvoir continuer di waxtaan ak sénégalais yi ci bilan bi nga xam ne suñu coalition am nañ ko à la tête de cette coalition le président Macky Sall. ndax nag aussi euh, ku wax rek te objectivité tax laa wax maanaam di wax rek te yàlla tax xam nañu ne ci secteur yëpp en une décennie Sénégal a changé de face loolu xam nañu ko ak secteur boo mun a jël xam nañ ne aussi nag aussi liggéey bi des na ndax daanu dajul suuf ni ko wolof di waxee kon war nañoo laxasaayuwaat waxtaan ak sénégalais yi sans arrogance en toute simplicité déglu leen déglu aussi seeni critique parce que nul n'est parfait bu ko defee ñoom it ñu jël seen ay suggestion bu ko defee bu président amee une majorité incha allah le 31 juillet 2022 suggestion yooyu aussi ñu boole ko ci programme yi pour que Sénégal jëm kanam jàmm nag moom la ñuy ñaan parce que li président réaliser muy Sénégal ñu xam contexte sous-régional bi nga xam ne ci la Sénégal di évoluer am na solo saa yu ñu yëkkatee kàddu jëmale ko ci sénégalais yi ñu xam ne ñun jàmm ñu jig ndax Sénégal fu ne ñu ngi ko fay tudd pour la qualité de sa démocratie pour la stabilité du pays kon ñu nit ci loolu euh, la ñuy ànd ak président gën cee ñaax sénégalais yi gën ci ñaax notre jeunesse saa yu njëkkatee kàddu aussi sensibiliser leen wax leen ne ce pays qui un pays de paix moom ñoom war nañu ko préserver ba ñu dem ci ay élections incha allah ci jàmm ak salaam le meilleur gagne te am nañu yaakaar nag ne le meilleur sera Benno Bokk Yaakaar kon ñu ngi leen di gërëm bu baax di leen sant madame la coordonnatrice féliciter toutes les composantes voilà au nom du président de la République mi nga xam ne dañ koy représenter mhm. voilà et puis encourager leen pour que effectivement mhm. vraiment au soir du 31 juillet ñu dajewaat fii mhm. incha allahu rabbi pour fêter une belle victoire ñu ngi lay sant bu baax a baax